fi coronavirus balay bëy di way mbuusa lu jëm ci wàllum dem bi ak dikk bi transport bi ab contrôle bu mat sëkk ak lu soxal wàllum takkuk masque gi ci lieu public yi yéen kaay gi de la turbine ñu xëy jàngee fane ni ki démb ci conseil des ministres bi njiit réew mi di président Macky Sall wax na lu leer ci lu jëm ci wàllum takkuk masque gi nee na bu ñu bañee ñaari vague yi am nañu takk masque yi te ñaareelu vague bu amee ci réewum Sénégal ñaareelu couvre-feu am ci réew mi yéen kaay gi de l'observateur daal di wax ne coronavirus bi nga xam ne moom lañ gis nañ ñi nga xam ne ñoo koy ama ma ngi bëriwaat loole nag tiital na ñi nga xam na ñoo nekk ci njobbaxtal gi ba nga xam ne nee na matukaay yi il faut ñu jëlaat ko maanaam gën koo dëgëral a kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa waa ànd gësëm ñoom nag daan nañu ñaawlu bu baax a baax bàyyeeku gi nga xam ne askanu Sénégal bàyyeeku nañ ko ci lu jëm ci wàllum jël mesure barrière yi waaye ñoom tim daan nañuy tuumaala état bu Sénégal ci lu jëm ci wàllum contrôle gi yéen a kaay gi de la Quotidien njiitu réew mi di président Macky Sall bëgg naa yokkaat li nga xam ne mooy jéego yi jëm ci wàllum plan de riposte soxal wàllum coronavirus a kaay gi de la Soleil nee na njiitu réew mi di président Macky Sall nee na ngir nag ñu bañ ñaareelu vague coronavirus am ci senegal dana ñu na taral li nga xamante ni mooy mesure barrière yi yéen kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Mohamed Tidiane Seck mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon kër gii di ADE moom nag daat nay wax ni mille milliards yi nga xam ne génne woon nañ ko ci coronavirus dañu ko waroon a jël dugal ko ci lu jëm ci wàllu mbay mi séq na waxtaan wu yaatoo ak waa réew wax na ci ñaareelu édition forum numérique bi ne thème bi moo nekkoon lan mooy njeexitalu xeex coronavirus ak relance économique économique jaarale ko ci xarala yu wax na lu soxal wàllum nouvelle technologie yi nan la ñu ko mën a jëfandikoo ci wàllum mbay mi ak wàllum élevage wax na tamit ci lu soxal wàllum agriculture intelligente yéen i kaay gii di Walf Fadjri nee na am na benn projet de loi boo xam ne gars yi ñoo ngi koy tëgg ñoo ngi koy waxtaane ngir nag amnistie ñi nga xam ne ñoo def ay tojaange ci lu jëm ci wàllum crime économique ak crime financier yéen i kaay gi nee na Macky Sall bëgg-bëggam mooy amnistie ñi nga xam ne ñooy ay jegeñaale waaye nag Karim Wade ak Khalifa Sall mën nañu faa jaaree génnaale ci gi yéen gi bi de Les Échos mu ñu xamal lan ñu am na benn collectif boo xam ne ñoom jóg nañu taxaw attaqué Mahmoud Saleh ndax nee nañu Mahmoud Saleh mii nga xam ne dañu ko def directeur de cabinet njiitu réew mi di Macky Sall amul diplôme boo xam ne moo ko koy may moo tax ñoom daal nañu jël mbir mi kalaamee ji ko sa Cour suprême ngir nag ñu daal di annuler nomination Mahmoud Saleh ndax nee nañu Mahmoud Saleh amul hiérarchie A te pour nga nekk directeur de cabinet il faut nga ame ko yéen a kaay gi di Direct News nee na lii ndax nag réewum Sénégal na ko réewum Léopold Sédar Senghor ak réewum Cheikh Anta Diop Mbaye Niang nee na Macky Sall ci boppam bi muy nommé Mahmoud Saleh xamutoon ne Mahmoud Saleh amul diplôme yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa maître Malick Sall ni dem bu ma ngi woon ci assemblée nationale waaye nag député yi waxtaane nañ ak moom lu jëm ci wàllum Souleymane Téliko mi jiite magistrat Sénégal ak ni nga xam ne moom la ñu doxalee ak moom waxtaane nañ fa lu jëm ci wàllum manque d'infrastructure waxtaane nañ fa tamit lu jëm ci wàllum kër yi yéen gi di Sud Quotidien nee na kër yi ñi nga xam ne ñoo fa nekk maanaam amul lenn lu ñuy liggéey ba pare ñoo ngi lay fay ndax kër yi jamono ja xam woon na ci mbiri Karim Wade ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkoon doon ko tuumala ba léegi amul benn liggéey boo xam ne waa CREI yi ñoo ngi koy def te ñi nga xam ne ñoo ngi fay liggéey ñoo ngi leen di fay maanaam fay nit ki te liggéeyul lenn te moo ne day ren jii lu toll ci 966 millions ngir fonctionnement CREI yi nattal nañu leen ko yéen i kaay gi di réew mi quotidien ni ki démb ci assemblée nationale Mame Diarra Fam daan nay wax maître Malick Sall ne ko Assane Diouf jamono ji dafa feebar ba maara day taale enquête yéen i kaay nee na lu toll si ñeen fukk ak ñett ñi nga xam ne ay taalibe Serigne Modou Kara la ñu teg leen loxo mooy ñi nekkoon ci centre de redressement yi ni ki démb déglu nañu leen waaye nag ñoom daat nañuy wax ne Serigne Modou Kara moo leen ko sant journal bii di Dakar Times nee na centre de redressement yu Serigne Modou Kara yi la wane mooy état bu moo la ci yéen a kaay di Le Quotidien lu jëm ci wàllum centre de redressement yi ak milice privée yi état bu Sénégal dafa nërmeelu sukk ñaari omam ci kanamu confrères yi yéen a kaay gii di L'Observateur nee na lu jëm ci mbirum Serigne Modou Kara yi am na lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ay nit ñoo xamante ni teg nañu leen loxo retour de parquet pression bu mag jamono ji moom la ñu teg justice bi Boubacar Sadio ancien commissaire nee mbirum Serigne Modou Kara mi du mujj fenn yéen kaay gi de am na ñetti accident yoo xam ne am na am na juróom-ñaari nit yoo xam ne faatu nañu ci stade yéen kaay nee na Paris saint dem na ca Manchester United dóor ñaari bal ci dara moo tax Manchester ngir mu qualifié ma ci danger yéen kaay gi sunu lamb ñu xëy a